Macky sàll def ñu yàpp baleel ma dama am benn ajout waa sama rajouté naa la donc ajout baa ngi def en cours soo mënee dugg dina ma dina ma intéressé trop surtout nag damay wax ak la gente féminine xam nañ ne jigéen ñi ñoo ëpp ci àdduna bi jigéen ñi ñoo ëpp Sénégal may woo sama moromu jigéen ñi di leen wax ne bu kenn voteel Macky Sall teel leen duggi marché ku mën a dugg marché tey sax na ko def pour dimanche ku ko mënul samedi bi na nga dem dugg sa marché ndax euh, nga mën a togg dimanche doo ko tardé fajar nga jóg dem voté ji bu leen togg di xaar naa damay xaar ba ñu añ ba pare walla damay xaar ba njogonalu ba pare soog a dem teel leen jóg ngeen dem voté ji le Sénégal nous appartient nu les femmes gisuleen leen fenn ci programme euh, ma ci sàll jigéen ñi am fa valeur président boo xam ne nag ba mu faloo ba léegi depuis sept ans promesse bu mu la mës a def musu ko yeggali baal leen ma xaar ma invité waat kii baal leen ma ajouté waaw euh, ndee mi maa ngi lay maa lay ajouté rek mais daf may defal ajout en xoolal ba xam ndax euh, da nga war a accepter pour nga mën a dugg je pense. ah kontaan na ma soeur kontaan xamoo sax sama xol bi nu mu set. dama kontaan trop. ndey mi dama bëgg ñu jigéen ñi jóg wat suñu bopp. dëgg la maa lay nuyu ba pare di la ziar. vraiment. bu wér a wér a wér maa lay bu baax a ah, baax. merci. vraiment maa la gën a kontaan maa Euh, euh, moi aussi, je t'adore. Ouais, tu es ma soeur merci, adorée. <laughs> voilà. Ouais, je te rejoins parce que il faut que, gis nga 2019 bi, il faut que ñu voté. Il faut que ñu voté. Parce que pour euh, maanaam xeex ak Macky Sall. Waaw dañu war a xeex ak Macky Sall nag. Dañu ko won suñu doole. Ñun jigéen ñi. Waaw dañu war a xeex ak moom. Dañu ko won suñu doole. Te góor ñi ñëwaguñu. Voilà. Fatou Seye nañu xeex ak mhm. moom. waaw parce que lim ñu teg dafa metti lim ñu teg dafa metti li mu teg kari metti na li mu teg suñu suñu papu ne euh, voilà dafa metti dafa metti waaw moo tax mm-hmm. voilà waaw euh, moo tax boycott moom waru mm-hmm. warul am daal waaw na ñun ñëpp jóg xeex ak Macky yi Macky na fi jóge waaw waaw man nag man nag man nag Idrissa Seck laay ko teel ñëpp benn la ñu ndey <laughs> l'essentiel rek na fi Macky Sall jóge waaw man moom dès le début. voilà man daal Idrissa votel day votel koo mën votel ku mën a ànd yow doom voté na voté ji. voilà on a un seul objectif mooy na fi Macky Sall di jógee parce que gis nga ndey depuis mu toog fi on a été humilié mm-hmm. amatuñu benn valeur. vraiment kenn nawloo wuñu. vraiment c'est un mal ne il est tellement dangereux non seulement pour son peuple le peuple sénégalais mais il est dangereux pour le mm-hmm. continent africain aussi. et que comme ni ay du yem. mën na law ba ci àdduna bi yëpp. waaw. voilà lu. waaw c'est vrai euh, te daf ñu jigul sax nag. Macky daf ñoo jigul nag jiguñu jiguñu jiguñu. mais Macky jiguñu. ah c'est zéro. defu si leen cinq ans def ñëpp gis nañ loolu mu ñëw toog sept ans. waaw. ana mm-hmm. bi fi Ablaye Wade mm-hmm. tegoon. mu jàpp nit yi te kenn du wax. Mm-hmm. ndey violence bi. jeex na Sénégal ndey. c'est normal amatu ah, fi. ndeysaan. c'est pas bi boo koy xool sax. Euh, man man wóor na yàlla yàlla laay seddeel li ma lay wax gis nga bëgg dafa metti man paa bi moo koy xool sax man wóor na yàlla man mënu ma koo xool ni sama ko euh, waddu et que peuple sénégalais bi comprendre ko dañ leen a manipuler man je parle pas en tant que euh, wadis mm-hmm. je parle en tant que sénégalais je parle en tant que ku yàlla sàkk en tant que nit parce que li Ablaye Wade di dund dafa métti. dëgg la su ko keneen dundoo woon su ko keneen dundoon tamit ndey dinaa taxaw ma wax. ñun rek ñoo mën a taxaw parce que euh, euh, gis nga li ma lay wax kane gis nga man man bokkuma man je ne milite pas euh, je mm. pour benn kii parti politique wala mouvement mm. politique mais maanaam li may wax rek karimiste yi nga xam ne ñu ngi ànd ak Karim wala ànd ak Wade ñëpp dañu bëgg Ablaye Wade seen biir xol. mais milité wuñu benn benn benn parti waaw euh, dañu bëgg Ablaye Wade daal dafa am yërmande waaw ba pare man nag Macky Sall euh, waaw ma gis nga doomu aadama warul warul bañ sax morom doomu aadama parce que loolu baaxul mais man li mu def Ablaye Wade dama ko bañ dama ko bañ ba taxaw musuma bañ nit ci àdduna waaw mais Mm-hmm. waaw mais xaaral mais xam nga man man man man daal man man sama position man mm-hmm. lu tax ma mere ko man mm-hmm. mooy maanaam gis nga teraanga kenn du ko cof nit bu la teralee dafa la teraanga goo xam ne doomu aadama yëpp gis ki wallaahi deewal ak sa ngor deewal ak sa ngor gis nga euh, diggante diggante Idrissa Seck ak paa bi moo gënoon metti euh, am na ñu bari ñoo xam ne xamuñu ni Karim Wade moo tax Macky Sall dend ak paa bi poste yi mu poste yi mu yi mu yore woon yëpp grâce à Karim moo tax paa bi jox ko ko moment boobu Idrissa Seck li mu doon dund kenn mënu la ko wax yaa ngi dégg mais nag euh, ba léegi kenn déggu Idrissa Seck mu wax lu bon parti wala wax Karim dafa jàppale su ma tooñoon nag mu dem seeti Ablaye Wade waaw yaa ngi gis nga nit nit am na boo xam ne waaw man xam seen diggante man xam nga man waa xam nga man euh, kani man fan laa jàppee Idrissa Seck gis nga man dafa am loo xam ne dama koy jàppee nit man du dërëm du dara du du dara man lu may jàppee nit mooy ngor parce que ba ma gën a metti bañ ko ne jubaleeg paa bi dafa ni carrément wax jooju laa jàpp léegi Ablaye Wade sama papa la def li ma defaral ginnaaw yàlla yu tubéeg samay waajur ko ci mm. neex na ma ko wax mais mais nit euh, euh, ki nag gi ni nga am na ngor Macky Sall amul ngor amul ngor Macky Sall lu ko lu rek ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla ak bi moo ko ko jox Ablaye Wade gore parce que li may tàmm di wax yàlla wàcc man loolu la ko kenn loxo ak loxo na ko am lii maa la ko jox daf koy awali si nit nañ si Ablaye Wade am ngor jox ko ko. waaw nit day am ngor tey bu taxawee ñu koy laaj ne ko justifier sa patrimoine. nit day am na mu ne am de milliards. ku ko jox mu ne ab lay ah ba pare war a taxaw maa ngi ñaan ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ku teralul mag doo teral jigéen. ah xoolal ni xoolal xoolal xoolal muy ni muy toroxalee bi gis nga paa bi xam nga nit ñi dañ koy dégg muy wax mais paa bi dafa am lu ko metti xam nga neexul nit ki nga jàppale ko dafa nekk ci àdduna mu jël doom doom doom gis nga doom amul gis nga doom amul ku mu nekkul ci xol waaw ku nekk jur nga doom sa doom doo ko yemale kenn mhm. waaw wax di nga bëgg nag yeneen doomu jàmbur mais sa doom doo ko yemale kenn wax parce que loolu yàlla moo ko def gars yi partage leen vidéo bi l'amour paternel dafa am l'amour maternel am voilà waaw nañ partage vidéo bi li ñuy wax nii maag ndeyam yi ndeyam yi ngi dañ ko def man vraiment rek pour euh, jigéen ñëpp jóg votel Macky Sall góor ñi tamit dinañ ko def mais ñëpp voté man de suñu wàll te lu tax ñu war a jóg woote contre Macky Sall loolu tey faalewul jigéen faalewul baadoola jigéen ñëpp lañu doomu aadama waaw danger la ci peuple bi nit koo xam ne lu la dig du ko mës a def da ngay ànd ak man normal soo àndul ak man ma faagaagal la kooku ku ko voteel bu toogaatee di nga gis ah, musiba bu raw musiba bi ngay dund mooy yow ñun Sénégal xam nga dañoo dee ba pare dox mais bu Macky euh, gagné waatee ñun ñu ngi doggale ñëppay moor ñëppay dee ci buumu jaam la ñu nekk ni instant bi ndey ah, ah métti na ah. ba pare xaalis bi mu joxe rek daal la wax ci ci affaire am bii nii nii ah, élection bi leen ne li mu def fii yëpp France ci campagne bi la ko dugal ñaata milliards dama lay wax ne ci diaspora bi xaw ma ndax ci yow courant ou pas diaspora bi li mu fi wàcc ci xaalis rek pour mën ko gagné kenn xamul nu mu toll diaspora bi ñun ñoo ko moom bu dara jàll ndey mais mais c'est trop quoi mais c'est trop. instant bi képp ku nekkoon si désespérance maa ngi ñaan ah. yàlla petite sœur petite sœur maa ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Mohamed salaa salaam élection yi yàlla ci yàlla def jàmm ñu gën cee jàmm ak salaam te yàlla yàlla wa yàlla wàccee Macky Sall ki jàmm ak salaam mu dem ak jàmm ak salaam waaw nañu nekk looy daal parce que kii moom nitu nit nitu si la quoi waa kay kontaan naa euh, trop nag di euh, dugal dugal rek waaw je t'aime fort merci beaucoup merci beaucoup maa ngi lay suivre maa ngi lay suivre. au revoir ok allez leen si jàmm. voilà donc. Euh, ok allez je allez c'est bon. donc gars yi li tax ma def tey audio bi muy dernier audio boo xam ne rek dama ne kii du moins euh, live bi muy dernier live boo xam ne naa ko def avant le tournant des élections li may tàmme di wax que ni moom c'est un danger national et que c'est un danger continental. c'est un danger mondial voilà waaw waaw Lamine Seck waaw l'essentiel rek ku bëgg a votel Idi na nga votel Idi ku bëgg a votel Sonko na nga votel Sonko mais l'essentiel mooy na fi Macky Sall jóge na fi Macky Sall jóge ndax parce que sonal nañu promesse bu bu ñu mës tegal fekk promesse la tegu ko fenn mu ngi ñuy jaay dooleem di ñu laqaral guddeeg bëccëg di pasar pasaree suñu alal et que là c'est inadmissible Macky Sall jël na Sénégalais yëpp def leen njaam li gën a métti nag mooy imaam yi nga xam ne da leen jël rek ëlbati leen ñoo ñu xoolatuñu yàlla xoolatuñu yonent bi xoolatuñu seen mission ci kaw suuf mais mission Macky Sall lañuy dox mission euh, palais présidentiel rek la ñuy dox muy lu ñaaw mais nee naa non si si gis nga imaam yooyu yëpp man man maa ne dootuma xool seen xutba dootuñu ma jiite julli moo xam imam bi Sénégal la nekk moo xam fii la nekk jàppale ma Macky Sall parce que nit day am yërmande alal ji mi ngi koy pasa pasaree dama ne na àdduna bi yëpp diaspora bi yëpp ay milliards la fi teg ba mu des euh, je pense euh, si je me trompe pas d'après mes recherches États-Unis xaw ma nag foofu nu muy demee voilà mais bu kenn voteel Macky Sall ku voteel Macky Sall mooy voteel nga sa voteel nga sa musiba votel nga musiba sénégalais yi votel nga musiba continent africain votel nga musiba sénégalais yi nekk ci diaspora bi waaw aljallo xaaral ma jéem la xaaral ma jéem la dugal may ma tuuti rek xaaral ma delluwaat si yow hmm, xool ba xam ndax naa la mën dugal deux my god hmm, je vais voir par là rechercher récemment invité Ali Al Diallo baal leen ma de dafa am sam benn frère bu nekk Paris bu war a dugg moom lay jéem a dugal nii xool ba xam mais Al Al Al su fekkee ne yaa ngi may dégg euh, yónnee ma invitation peut-être mu gën a gaaw yónnee ma invitation mu gën a gaaw peut-être xaaral ma xool voilà Al yónnee naa la benn invitation soo ko jotul. al yónnee naa la benn invitation soo jotul yow jëm invité ba xam ma accepté mais xoolal ne euh, naa la xool ko euh, ngeen baalal ma de baalaleel ma si coupure bi parce que dama bëggoon def rek benn live bu gàtt gàtt gàtt gàtt donc euh, al jàll su dee yaa ngi may dégg génnaatal live bi nga duggaat boo duggaatee rek nga nga lancé ma benn euh, benn kii hmm, benn invitation dinaa la mën accepter dégg nga dégg nga voilà donc voilà sama mbokku jigéen ñi yéen a tax rek may defaat euh, live bi di wax rek teel leen a jóg kuy dugg yi na nga dugg samedi soo ko mënul dugg tey nanga ko dugg samedi dimanche bi nga xam ne feex nga nga teel a yeewu dam voté ji ngeen toog dañu sonn ci Macky Sall respecté ñu faale wuñu joxuñu cër di pasar pasaree suñu alal ji di def lu ko neex il faut que ça suffit ba ñu fàllee bañ ña folli woon Ablaye Wade lay wax ndax man musuma caa bokku j'ai des preuves ici ndax ne woon naa leen faites très attention c'est facile de remplacer quelqu'un mais est-ce que cette personne sera toujours à à à l'attente euh, de sa population qu'il fallait wu ma donc ña faloon Macky Sall laay waxal jóg leen ngeen folli ji ko sonn nañu eh, baal baal leen ma il faut que Al Diallo dugg mais voilà euh, baal leen ma de. Ali, je vois pas. Hein? Euh, Al Ali, on va essayer de voir. Autorisé, d'accord. Al, je pense que la jouée est en cours et que normalement, dans quelques minutes ou quelques secondes, tu dois être euh, voilà, dans le live. Parce que je vois qu'il me dit à jouer en cours. Ça traîne un peu. Je pense que c'est un problème de réseau. Parce que franchement, gars yi partagez leen vidéo bi s'il vous plaît partagez leen ko du man maa soxla buzz non non li may def dama koy def pour sama intérêt Sénégal Sénégal rek ma voilà am na fu ma bokk PDS laa bokk sama parti soxlawu ma fa dara musuma caa am dara te maa ngi toog li may wax ni Sénégal moo tax ma koy wax al je vois qu'il mais toujours la joue en courant je comprends pas mais nañ xëcc rek bu bu yegsi bu daggul dina yegsi waaw Lamine Seck sama grand frère wax nga dëgg imaamu France Afrique yi euh, yéeme na yéeme doy na waat aucune réponse de la part de Al Diallo ay waay jëlee Al dugal waay allez autorisé encore. ñoom ñoo koy tey yi ah bu ñu gisee benn groupe boo xam ne rek une entité forte boo xam ne mën nañu empêcher sen euh, seen voilà Al Yersil. oui bonsoir ma soeur. mon frère fier de toi déjà. Hmm? <laughs> Merci, je vais l'écrire au haut fort. Parce que Merci. je vois le travail que ah. dans les réseaux sociaux et on a besoin de Merci. toi. Et des gens qui sont comme tout toi. Tout à fait. Merci Tout à fait. Tout à fait. Mm. te comme yow rek yow tamit euh, vraiment dañuy rafetlu bu baax sa sa taxawaay. nga nekk koo xam ne aussi une grande responsable ñu lay séddee lu baax. li nga def ci parti démocratique sénégalais dans la diaspora particulièrement ak Marseille. nga nekk koo xam ne dañ la respecté ndax sa engagement. sa fidélité sa constance. ak sa bëgg Sénégal au delà du PDS sa bëgg Sénégal waaw euh, aujourd'hui li nga yëkkati nii dafa nekk lu am importance da mhm. dañu toll ci euh, ci waxtu boo xam ne mhm. ñu ñu jéem a wax ak sénégalais yi ay wi jot na kenn mhm. voilà kenn mënu leen jënd te aujourd'hui li nga xamante ne président Macky ak nguuram taxawoon nañu ko mooy maanaam tànnal Euh, peuple sénégalais ay candidats yi nga xamante ne war na leen war na jan euh, jaamaarle ak ñoom def na ko imposé na ko le peuple sénégalais mais munu leen imposer que ñoom ñu votel ko par force mm-hmm. loolu nag il faut ñu taxaw temm parce que damay dégg le ministre de l'intérieur di wax i naan way ils ont pris les dispositions les bureaux de vote euh, tout est mis en place et tout mais damay alerter l'opposition c'est-à-dire mm -hmm. les de l'opposition parce que ñun on se rappelle en mille bu ñuy taxaw di jàppale le président Abdoulaye Wade ñu fal ko dañ jóge woon université man je la Casamance je suis de Kolda mhm. ñu ñibbi tasaaru mhm. ci Kolda ci àll bi un peu partout on a mhm. été des avant-gardes dañu dem waxtaan suñu yaay ak suñu papi c'était très difficile parce que jamono jooju dañ doon wax ne Abdou Diouf yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi jëlee. waaw loolu la ñu yaay yi waaw suñu hmm. yaay ak suñu papi loolu lañ leen doon kii mais ñun bu jógee université ñëw voilà hmm. expliquer leen naan leen hmm. loolu du dëgg aujourd'hui carte war na fi mën a jëlee nit franchement ñu accompagner leen am na ñenn ñi nga xamante ne ça je me rappelle bien en deux mille dañu doon nekk ci ronu mango yi garabu mango yi di ataaya di leen naan ah yaay est-ce que fàttewu leen non mukk yéen kay noppi leen dañ doon dem voter votel le président Abdoulaye ba pare indaale xobu parti socialiste fekk ñu dugal ko ci seen laxas ko ci seen série yi des trucs comme ça ñenn ñi nëbb ko indi ko tegal ñu ko ci ataayam naan leen kontaan ngeen ñu ne waaw ñu dem seen yoon les résultats ont été probants waaw métti woon na mhm. ah voilà woon na mais les résultats ont été probants mais dañ ko xeex dañ ko gëm voilà il faut que nit ñi gëm ko ba pare ñu mhm. alerter parce que les euh, mhm. les les centres de vote ou bien les villes yi nga xamante ne Macky leer leer na ko ni du fa gagner mm-hmm. qu'est-ce qu'ils vont mm-hmm. faire c'est que il a mm-hmm. des sous-préfets et des préfets là-bas à sa disposition il va demander à ces gens-là de retenir le matériel électoral duñ ko def duñ ko mettre en place au niveau des bureaux de vote bu boobaa lan lan lan lay indi njàqare ju parce que suñu yaay yi suñu papa yi nga xamante ne nekk nañ ci ci ci ci gox yooyu dañuy teel a jóg dem voté ji mais buñ fa yeggee dañ leen di naan matériel bi dafa tardé matériel bi solo déglu leen waaw matériel bi dañuy dañ leen di wax ne que matériel bi day tardé dañ leen di wax ne que matériel bi day tardé bu boobaa ñu ñu toog foofu di xaar waaw au lieu que euh, le scrutin démarre à huit heures ñenn ñi hmm. dañuy toog ba ay onze heures midi bu boobaa suñu hmm. yaay ñu bëri nga xamante ne dañuy war a dem marché hmm. dañuy découragé dem marché du ñu xasee dem ba marché ñibbisi euh, ndugg ñibbisi togg la ñuy tal du ñu tal dellu dem voté ji. moo tax ma ne nañ teel a dugg ça mais ba pare ñu insister que ne le matériel électoral soit mis en place très tôt que bu ñu nangu. que euh, par exemple ñu mhm. ñu leen di wax ne que non le matériel électoral n'est pas là on va pas démarrer mhm. le scrutin affaire yu mel yooyu yëpp mhm. ay xeetu fraude la. fraude yoo nga xamante ne yu ñuy légaliser la te dañ koy def. ba mu commencé fraude al boobu juddooguñu ah. ba mu toogee ba léegi mu ngi ah. fraude. loolu la Sénégalais yi xam xamuñu loolu. dafa yàgg fraude instant bi il il va passer tout juste à l'action mais tout a été bien fait au au au au près. na Sénégal yi xam loolu pour sàcc bi du xew li ngay wax nii mm-hmm. Mm-hmm. pour déggal pour déggal li ngay wax ni président Wade wax na ko te damay ñëwaat ci kàddu président Wade c'est-à-dire hmm. mag ay waxam du dem àll lu muy wax ni lu mu xam la voilà il le sait très bien et je me je me réjouis je me réjouis problème des Sénégalais je me réjouis vraiment le fait que président Abdoulaye Wade am dëgg hmm. aussi ci ci kaw sénégalais yu bëri ñu ko bëggoon hmm. diaboliser taxaw na nee na man de yaa euh, yaakaaruma ni que élection dina am Sénégal c'est-à-dire mascarade électorale mooy am. ci kaw loolu nag man lay doon mais. waaw du ma dem vote mais du ma tere Abdou Diouf waaw. nañ ko defaat le peuple c'est nous le pouvoir c'est nous c'est le peuple qui élit les présidents de la République et ce peuple doit être respecté par A ou B au cas ce peuple n'a pas été respecté le peuple doit se lever et dire ñett voilà. exactement bu ko kenn nangu léegi moom léegi moom le président Abdoulaye Wade a bien dit que moom mm-hmm. mascarade bi du ci bokk waaye moom ci mbaaxaayam ak euh, mm-hmm. euh, sa grandeur il a dit qu'il comprend qu'il comprend ses militants ñi nga xamante ni mm-hmm. ñu ngi koy gunge di gunge euh, le président Karim Wade que ñooñu bu ñu demee voter pour l'opposition il va les comprendre pour l'opposition et particulièrement pour les trois candidats que sont Ousmane Sonko Idrissa Seck et comment s'appelle Issa salle de PUR loolu la wax te loolu nag yaakaar naa ni les sénégalais ñi nga xamante ne ñu ngi bokk PDS ak les mm. mouvements de soutien dañu war a jóg taxaw mm. farlu ñu voter mm. contre Macky Sall voter pour les opposants te les opposants ils sont là ñett lañu ñu ngi fii ñu ràññee leen ku nekk nga dem voter fu la neex l'essentiel nga bañ a voter pour Macky Sall te loolu ñun suñu combat mooy aujourd'hui pour que le mot d'ordre ne pour que le président Macky Sall jóge fi te ku voter ba pare na nga jël bulletin ko wane na voteloo ko nañ ko collectionné parce que sàcc bi du jàll baal ma rek àll yow baara fay baara fay fii nga dugg du sa place du sa place tes parents je pense qu'ils ont mal fait de t'avoir mis au monde si je me trompe pas sa baay bu yoroon capote je pense doo judd bay taxaw naan yaa ngi ànd ak Macky sàll dama na nga génn fii balaa ngay dégg musiba kenn musuma a suñu ñaaw amuloo droit di dugg sama page di wax quoi que ce soit je t'ai pas invité soof de là yow bàyyi leen non non il faut nga ñamale leen waaw c'est des gens de personnes qui sont nuisibles à toute société voilà il faut nga ñamale leen voilà c'est des gens aujourd'hui c'est des mmh. gens qui, qui cherchent à nous distraire. Mais nous, on ne va pas accepter cela. Aujourd'hui, mmh. il faut qu'on concentre notre mmh. discussion, notre communication sur le peuple sénégalais. Amna ben mascarade bouni préparé, mais warnen que mena bagne. On est à trois jours du scrutin. Moi, manam lan, c'est le peuple lui-même qui doit être garant de ce scrutin-là. Ah, pour ne pas qu'on confisque, voilà, pour ne pas qu'on confisque le suffrage des Sénégalais. Mm-hmm. loolu nag ku nekk ci wàlla mm-hmm. war na mën a taxaw taxawaay boobu mm-hmm. maanaam boo ñëwee nga voté da ngay fexe ba sa vote boobu kenn du ko sàcc di ko jox Macky Sall ak lu mu àndal vote boobu dañ ko war a sécuriser te peuple bi eh aujourd'hui il est mature gis nga eh même sénégalais yu nekkoon ci àll bi xamuñu woon dara yàlla indil na leen dara mooy aujourd'hui fépp foo nekk ci Sénégal mën nga am def sa live Facebook wane li xew sa gox comprendre nga aujourd'hui hmm. même dans l'administration may def na fa ay préfet ak ay sous-préfet hmm. mais ñooñu mënatuñu def lu leen neex bu ñu hmm. constaté que démarrage scrutin bi dafa tardé ci yenn gox yi dañ ko war a médiatiser def ko ci Facebook wane que ni parti bi de dañu def dañu salfaañe élection bi hmm. c'est-à-dire bañ a démarrer scrutin parce que Aly Ngouille Ndiaye taxaw na fi naan tout le matériel hmm. à destination et est déjà sur place. mais que des mensonges dañuy bañ au de vie que des mensonges il nous sur des plateaux en argent et en or c'est pas possible ça suffit. mënul nekk exactement voilà di Sénégal yi yeewu. voilà c'est ça donc voilà <laughs> donc de toute façon il va falloir continuer le travail. et puis et puis di la remercier bu baax. di ñaan jàmm aussi Sénégal di di di ñaan vraiment jàmm Sénégal yal na yàlla def jàmm yal na yàlla jàppale le peuple sénégalais ñu voté débarrassé noonu nous débarrassé de ce régime là loolu c'est une c'est une demande sociale waaw léegi nag yal na ko yàlla def ci jàmm ak ci salaam yal na yàlla vraiment wisaare jàmm ci Sénégal ñu débarrasser de Macky Sall et de son régime on est déterminé pour ça que tous les Sénégalais épris de paix et de justice votent contre Macky mm-hmm. et que voilà et que et que et que et que Sénégal dépasse ce 24 février là si jàmm ñu envoyé ñu envoyé ce régime là vraiment en voilà à terre on va l'enterrer pour toujours on n'en veut pas. merci Alcantara jërëjëf liggéey bi rafet na voilà à bientôt merci beaucoup. donc euh, voilà gars yi li ma leen wax rek mooy di euh, jour vote bi moom képp kuy góor bo amoon costume cravate na nga ko génne sangu ba set sañ say laal sa parfum teel a yeewu nag dem voté ji.